Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance en nous voler, merci de du like, merci de des abonner, merci également du bail, c'est les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. En hein. boxe sénégalais, fait pour les maintenant 14 régions du Sénégal. Rokhrokhad, Gorgorad, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci la l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire gi ñeneen ñi deful mo leen fa yobu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi do aduna suñu borom xale laa jëne fi do si gars yi te ñu on avance ensemble dans la magie de e-sport TV l'actualité en contenu actuellement on va parler de l'équipe nationale du Sénégal Regra gi tont na Aliou Cissé waxal également ci Florentino Pérez mi wax ci ki di Kylian Mbappé mais la ta bobu na yi ki kan mom mën a wax gars li ban équipe la ban équipe la ak ban année la ban équipe la Akban ban la gay, parce que li c' exceptionnel équipe bii c'était non c' exceptionnel ni ko fekkee Li na gay yi nar nek mayo bi wara nek mayo bu Madrid saison 2023-2024 vingt la gay wax ah, donc mi ngi par rapport au bi Atlético nag man sincèrement mun maa <laughs> xàmme sen mayo daw, ak bu ren quoi kii di Amari Traoré officiellement tay jii la signé contrat ak Real Sociedad le capitaine donc des Aigles du Mali bi jugee Niofi Ren ñëw fii Rennes jouer du côté de la Liga espagnole. Espagnol, qui nak également de Romain Saïs, le capitaine euh, des euh, Lions plutôt des, euh, des Lions de l'Atlas indomptable les Lions de l'Atlas du Maroc moom nag Nottingham Forest et Everton ñoom ñaar ñoo koy daal Galatasaray également mi ngi ci course hein, pour daal di fexe ba joueur bi daal fay donc évoluer aussi ki nga xam ne mooy donc gars yi ngeen gis gars yi booy ngeen gis mooy Brahim mooy kii gay ngeen mooy Brahim Diaz Brahim Diaz moo nekk ne di seetaan ñaari idolam temps yi gis ngeen mi ngi nekkoon centre de formation la nekkoon jamono ji gaay nak ñaari dof yaag ni les deux fou, brésiliens gis ngeen dem photo bi xaw yaag tout, mais un peu vous rappeler gars les deux ils font partie des deux meilleurs défenseurs de l'histoire du football gaay C'est cette génération bien sûr Yuri Tillmans gaay nak dem na Aston Villa pour trois ans ah donc mom ki di donc Unai Emery moo ko convaincre mu dal di fay ñëw donc il signe au niveau de Aston Villa pour trois ans Yuri Tillmans ki nga xam également moy Oxley Chamberlain momit it également mi ngi jege Aston Aston parce que aussi moom it euh, kii di Unai Emery daf ko woo pour mu daal di fay ñëw c'est un excellent milieu de terrain mais amul chance nag joue non li mu waroon jouer du côté de Liverpool Mason Mount moom it waa euh, Manchester United ñi ngi yaakaar mu daal di fay ñëw même bu fekkee ne ñoom actuellement dossier bi di dossier Harry xaw na leen a sonal parce que amatuñ ci yaakaar mais Mason Mount moom ñu ngi gëm ne dina ñëw kii nag di Federico Chiesa moom it waa Arsenal actuellement aussi ñoo génne Arsenal bi pour daal di koy recruter ñu ngi ciy xool ah ñoom ak waa Juventus parce que dañuy xool opportunité bu Juventus dee dee jaare ñu daal di koy jënd kii nag di Steven moom actuellement waa Arabie Saoudite daal am na club yi fa nekk aussi bëgg ko proposer mu daal di fay ñëw donc Arabie daal temps yi moom européen lañ daal di jël teg seen gën procurer ay joueurs kii nag di moo def déclaration bu exceptionnelle tey bu mu génnee benn supporter mën na ko doo jënd Mbappé mën na ko waaw mais du ren ji déwén nee na ko daal du ren ji parce que Mbappé benn année yi laaj ko ko mu ne xam naa yéen a ngi kontaan kii nag di Famara Diédhiou l'homme au grand cœur di def ay gestes sociaux par rapport ak lépp lu mu dégg rek ne doomu aadama soxla na Sénégal mi ci dugal loxo moom nag fi ne ni Granada dafa war a option d'achat bu bëggee mu toog fa équipe am nag na équipe am na ci li nga xam ne nag mooy donc euh, Liga espagnole ki nga xam ne également mooy donc mi ngi nii Bernardo Silva Grealish ñoo ci kaw Gundogan De Bruyne nekk ci ci milieu terrain bi Rodri Stones Akanji Ake Diaz Ederson en défense donc moy ki ngeen di gis ni ngay di Walker Kai Walker tay dafa tok parce que également il y a le retour bien sûr de Nathan Ake donc actuellement dal Nathan Ake moko Ake yóbbu ko ci banc bi mom fas jouer du côté de l'Inter de Milan ñu la surprise moy Edin Dzeko moy joueur titulaire avec un 3-5-2 donc de l'Inter de Milan qui dit donc joueur bi ñëpp jàppoon ne mooy départ di Romelu Lukaku Lukaku gars yi nag moom mi ngi ci banc bi ci banc bi la départ mais attention waa Inter également mën nañ ko dugal mu nekk seen arme secrète parce que il a ses possibilités. bàyyi na ba gars yi sonn xoox mu daal di ñëw moom nag duel mi ngi ko doon xar moom ak Haaland seen taay ak yooyu kii nag di wax naa leen ko di donc Thiago Motta waa Bologne daal même bu fekkee day toog ñi ngi waa Paris Saint-Germain ak yeneen club ñi ngi insister loolu la wax moom daal bokk na ci liste Paris Saint-Germain bi mais am na yeneen club yu insister pour mu daal di fay ñëw donc jógee Bologne ki nga xam nag mooy walid rek raag tontu na euh, kii di Aliou Cissé du farox nee moom Maroc euh, parcours bi mu am tey kon moom club africain yëpp ko bëgg a am moom daal tey loolu la sër ci nga xam mooy conférence de presse bi jëm si nag bu leen fàtte Aliou Cissé dafa wax ne.